ki kii da ko génne fële da ko ba ma génne ko foofu boobu loolu affaire bi laajoon xanaa. boobu moom moo dafa am ñaari avertissement. waaw man xam naa ne bu arbitre sifflé sans gagne sans perte lay def. Mhm. parce que moom. <laughs> expérience wax ñu noonu kon. heure bu ma taxawee. waaw damay bi arbitre sifflé. ba jox ko avertissement xam naa ne fi mu toll nii moom mhm. lenn rek lay gis. Mhm. ñëw sama kaw rek. de sans gagne sans lu mu am jël. waaw. man tamit man xam naa ne loolu lay def moo tax arbitre bi mu sifflé mu daw ñëw ma de reculer deux pas. Hmm. fii te tere bi tourné. def rotation téye loxo bi tourné. Hmm. muy jéem a mbot ma aj sama loxo wàcce waat si suuf pour mu bañ ma mbot ma sokke mu bàyyi ma bëmax ko mu jénn te boobu mooy ci tere bi xam naa ne mooy. day jël avertissement force te bu ko jëlee bu wóor bu waxee mu génn. bu génnee saako yi affaire bi jeex. donc expérience ma lay wax. mooy li grand Sall doon wax léegi ci expérience bi. la a yàgg rek. a compétition bi daa moom bu moom. Mhm. kooku mooy ëpp problème que moom. Ah parce que lit africain la. lit africain la. amul jàpp ngemb amul jàpp ngemb. xoolal mbëri ci jaar yëpp dégg nañu daal ci làmb ji. xool na mu fermé loxo ba gën na mu téye loxo ba. xam nga bëreet doo jàpp ngeen Babacar loolu force technique ngay def pour daan. nit ki ah ay loxo ngay bëree tànk ci loxo rek ngay bëree. sa yaram yaram doo jàpp ngeen. ñi ciy jaar nag. Mhm. en général xoolal dañ lay dant doo leen sax téye. waaw ah dañ lay dant doo leen téye. mais ñi ci jaarul en général ci bëri ba pare séeréer si léegi sax la ñu xam jàpp ngeen ni. Mhm. man may dem drapeau chef de l'État mhm. euh, boobu amul jàpp ngem. Hmm. boobu amul jàpp ngeem ci te ba léegi nii amul jàpp ngem ci loxo la ñuy bëree. Ah, gaa yi naan ma ne mbëru séeréer ci sa loxo la ñuy bëree. Mhm. mais du ma nangu sama loxo sax nga téye ko. parce que buñ ko téye da nekk en temps sax na. Babacar gis nga école football yi ni ñu nekkee. nga ciy jànge football. waaw bëri simple noonu nga ciy jànge bëri. mën nga ciy jànge bëri. loo ciy gën a dem nag di gën a am expérience. xam nga tey ngeen bokk écurie nii chaque suñu ngoon nga ngeen di daje di contact di bëri da ngay dem ba xam kii li muy bëri ki xam kii li muy bëri pour ngeen daanante dootut yomb dootul yomb mais imagine tumaa nga dem beneen dëkk mm-hmm. di bëri ñoo xam ne xamoo lu ñuy bëree mm-hmm. mais loolu dafa yombul déedéet loolu yombul bokkul ak benn écurie rek sax ngoon yéenay daj di bëri daje di contact ngi di daanante léegi di nga mm-hmm. fay gis ay technique yoo xam ne la lay wóor ne keelee mu def ni yow mënoo ko boo bu dee am nga xel nag boo demee da ngay jàng technique boobu noonu. da nga koy jàng booleeg li nga yoroon. booleeg li nga yoroon. mu mu ne mu voilà mu ngi noonu.